bisimilah ñu ngi nii nuyu bu baax di leen ziar baax di jéggalu nag sànq euh, kii bi moo daggoon rek loolu moo taxoon ñu ngi ci jéggalu bu baax waaw leneen li nga xamante ni moom lañ leen di wanaat ah mooy comme garab yi la ñuy présenté waat lépp ci wàllu wér-gu-yaram comme exemple tey jii bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni kat moom mooy produit bi produit bi ñu ci bëri dañ koy gis waaye dañoo desee xam produit bi produit bi mu ngi jox ci li nga xamante ne mooy góor gi nga xamante ne kat dafa néew kàttan góor gi nga xamante ne moom buy sëy day gaaw jot boppam souvent ci lu bëri bii ci loolu lay dox képp koo xamante ne rek yaa ngi seetlu booy sëy di gaaw jot sa bopp ci kàttanu si borom xamal ni loolu maanaam li koy saafara mooy lii produit bi bii nag buñ la ko joxee meew nga koy booleel comme boo ko tijjee. waaw ñu nekk bitim réew genn wàll yëpp xam nañ ko boo ko tijjee da ngay jël kudd bu ndaw rek def ci ci kaas bi bàyyi mu sedd bàyyi mu feey moom si gaaw gaaw doonul sunguf boo xamante ni day dem di gës ay grain wala dara moom boo dugalee rek day seey moom bu seeyee nga jël ko comme ni exemple ni ñu lu leer lañ bëgg nga def nii comme ni si kaas bi tuuti rek ngay def gis nga day diig day seey gis nga day seey nga bàyyi mu seey bo baye ba mu sey ni nga jël ko diko nan day fekk nak nga reer ba paré day fekk nga reer ba paré ci carton ci borom diko nan rabbi boko defé ci carton ci borom di nga mëna jot sa bop normal sa dula indil ben effet secondaire sa donu lo xamanteni day dem ba ci bir mu lay yakal wala dara dedet sa lepp natural lay don wa banen bi amna tamit comme bi bu ndaw bi gis nga bu ndaw bi tamit mo nek ni ba légui gis nga bu ndaw bi mo nek ni mom tamit comme non la ci lay dox moom tamit képp koo xamante ni jël nga ko incha allahu rabi moom di ci gis sa bopp moo xam yaa ngi ci biir réew mi moo xam nekkoo fi bu dee nekkoo fi danga nekk bitim réew mën na ñoo fexe ba nga jot ci bu dee tamit yaa ngi ci biir réew mi yaa ngi koy seetaan bëgg nga ci produit bi incha allahu rabi boo waxee fi nga nekk mën nañ la ko jox nga jot ci mën nañ am nañ GPS yoo xamante ni ñoo ngi fi ñu livré la ko foo mënti nekk ba nga jot ci garab la boo xamante ne garab bu bëri njariñ la sa incha allahu rabi képp koo xamante ni yaa ngi am problème mu biir wala dara tey boo ko dee jël di ci gis sa bopp bu baax a baax kon garabu góor bu baax la sëñ Xaadim moo ko liggéeyal boppam wutiwuñu ko fenn képp koo xamante ni jël nga garab bii muy garabu jodd bii incha allahu rabbi di nga ni jodd sa garab bu bëri njariñ la li ci nekk moo bëri sa lépp lu ñu ko liggéeyee mooy plan naturel yi nga xamante ne nekk si biir réew mi rek laa ko liggéeyee wutiwu ma ko fenn kon képp koo xamante ne bëgg nga ci garab bi pomat bi ñëwal jël ko boo ko jëlee di ci gis sa bopp bu baax a baax a baax a baax waaw beneen bi lu mu amee produit loolu la amee pommade ba tey gis ngeen bi pommade la gis ngeen boo xoolee dafa mel ni comme genre frotté bi tamit si góor lay dox bu dee góor ki tamit day gaaw a jot boppam waaw awra bi maanaam ngeen baal ma ci wax ji xaw a nooy wala dara moom da koy jël def ko ci bopp sàkkara bi rek ci kàttanu si borom di nga ci gis sa bopp baax a baax baax bii ndax parce que tamit damay leer damay leeral kon damay bëgg lépp leer pommade la da nga ko ciy maase tuuti rek boo maasee tuuti nii rek jeex na da ngay bàyyi. li pomat bi li muy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw mun naa yàgg ak yow pomat bi ñu bëri maanaam bëri na bit waa bitim réew yi xam nañ ko ndax am na si ñoo xam dañuy ñëw fii def ci ay commandes yu bëri yóbbuwaat ko di ko joxe waaye lépp si garabu sëñ xaadim la képp koo xamante ni jox naa la ko rek di nga ci gis sa bopp bu baax a baax a baax mooy produit bi produit ba tey jodd bi la mooy frotté jodd bi frotté jodd bi la kon daf na ngeen ko xam sa jël si ko moo nga nii comme nataalu garab bi nag moo ngi nii samay garab boo ci gis rek moo ngi am drapeau drapeau Sénégal vert jaune rouge mooy garabu sëñ xaadim kon ñëw leen jël si ko mooy pommade jodd jodd bi moo ngi nii pommade la bu bari njariñ ba tey bii anamu doo bokkul bii bii pour hémorroïde la mu pour ñi nga xamante ni dañoo amee hémorroïde mu sonal leen trop hémorroïde bi taw wér fu nekk ñu sonoog mu def picc si ginnaaw di nàcc wala dara ndax hémorroïde euh, wax naa ko fi sama émission yi passé man leen hémorroïde dafa doon garab feebar boo xamante ne feebar bu doy waar la ndax day nekk sa biir bi togg nekk sa biir bi bu yàggee demee ba yàgg mooy doon bul boobu di génn sa ginnaaw sax bu demee ba yàgg mun nay ànd ak deret di génn di këpp deret kon loolu bu la dalee nga bëgg ci et mucc bëgg a tàggoog moom fexe la am produit bii produit bii karité laa ko liggéeyee si karité moom ngay jël si ginnaaw fu picc bi nekk rek nga koy def par tuuti nga koy def sa loxo nii rek di ko faraay ci kàttanu si borom boo ko fa defee incha allahu rabbi cinq jours nga mel ni musoo amee hémorroïde bu génn sa cinq jours day mel ni musoo ko amee même bu picc bi demoon bay nàcc di génn deret di këpp deret moom ci kàttanu si borom boo ko dee jël incha allahu rabbi moom di nga sant bu baax a baax a baax a baax ndax garab la boo xam ne dafa bëri njariñ ndax naari xam nañ ko ndax jàpp naa ne li ma ci yóbbu woon sot bi may dem Nouakchott yi ma ci yóbbu woon jàpp naa ne lépp a jeex ndax xam nañ garab gii garab la boo xam bu bari njariñ la garab la boo xamante ni képp koo xamante ni jël nga ko ci kàttanu si borom di nga ci gis sa bopp muy wàllu hémorroïde ndax hémorroïde baaxul ci góor baaxul ci jigéen yàgg naa di ko expliqué nag hémorroïde baaxul ci jigéen baaxul ci góor kon képp koo xamante ni hémorroïde moo ngi la sonal incha allahu rabbi boo dikkee ma jox la garab bi ci kàttanu si borom di nga tàggoog hémorroïde boobu incha allahu rabbi kon ba tey damay ñëwaat si faneen rek ndax lépp ci cadre leeral la rek ndax nit ñi tamit dañoo sonn yor la lépp looy wax rek mu doon loo xamante ni ah luy kii la bii tamit gis ngeen ko pommade bi boo xoolee wàllu biir la mooy ñi nga xam dañoo am biir moom bii da ngay tàngal ndox jël ko di ko naan incha allahu rabi moom tamit boo ko jëlee incha allahu rabi di nga ci gis sa bopp bu baax même ndoxum siti boo ko amee da cee baax ndoxum siti ndax feebar fi lii yëpp si ndey ndoxum siti mooy ndey jàngoro bi waaye ci kàttanu ci borom boo ko jëlee incha allahu rabi di ko consommé moom da tàngal ndox bu mu tàng def ci biir mooy loolu di ko naan te ci kàttanu ci borom boo ko jëlee incha allahu rabi di ko naan ci kàttanu ci borom dina wàññi sa biir sa fekkee da nga amee ndoxum siti wala ay picc yi génn sa yaram moom incha allahu rabi di nga tàggoo ak moom. kon garab yu bari njariñ la garab yi yëpp képp ku jël garabu seigne khadim inshallah rabbi ding ci gis sa bopp baakha baakha baakha baakha ba ce lepp ay plan notre le plan yo xamanteni ci bir rew mi la jugge ñu defaral ko suñu bop saytu ko xol ko bu baax ba kep kuñ koy jox rek bëgg nañ nga gis sa bop baakha baax kon nak ñoo ngi ah di jaajeufal ñep di leen wax ni ngeen and ak seigne khadim si émission bi muy def xamanteni lepp pour walu luy fajj aajo jami la ngeen ànd ak moom ci Tawfekh TV ah, xam ne ay njariñ kese la Tawfekh TV lépp lu mu génne nag ay njariñ la ci kàttanu si borom kon di jaajëfal ñëpp nag di leen wax ni ba beneen yoon incha allah ñu xoolaat leneen jërëjëf.